Al Madina Travel Salum Jidda SeneInfo International ak tarixa Tijaaniya in America si njiital suñu imam Mouhammad Muntaqa Sakho ñoo leen di may émission bu mag bii di seen bismillahi rahmaani rahim qaala baabun as-sawmu li ru'yati al-hilaal an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qaala ذكر رسول عليه وسلم لهلال فقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن أغمي عليكم فعدوا هلاله أخرجه البخاري ومسلم وعن أم سلمة radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xalafa an laa yadxula ala bacdi ahlihi shahra falamma madaa tiscun wa cishruuna yawman gadaa calayhim aw raax faqiila lahu xalafta yaa rab xalafta yaa nabiyya allahi sallallahu alayhi wa sallam an tadxula calaynaa shahra qaala inna ash-shahra yakunu tis'atan wa 'ishriina yawman axrajahu al-Buxaari wa Muslim Sayyidina Abu Hurayra radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu narrated that the Holy Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam made a mention of the new moon and said, Observe fast when you see it. and break fast when you see it. But when it is when but when it is obscured from you, then complete it complete it as thirty days. Sayyidina, Sayyidina Umm Salamah radiallahu tabaraka wa ta'ala narrated that the Holy Messenger of Allah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam took an oath that he would not go to some of his wives for a whole month. When 29 days passed, he sallallahu alayhi wa sallam went to them in the morning or in the evening. It was said to him, O Prophet of Allah, alayhi salatu wasalam, You took an oath that you would not come to us for a month. He said, The month may consist of 29 days. Bukhari and Muslim. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان وبلغنا رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا هذا وصلى الله على مولانا محمد Deus, meu Senhor. Amém.